Wahyu. Alif Wahyu. T I. T I D. O. Do. D A. Da. A. kan kanga. Re A Ra. Wa. Z A Za. Tepenemu. Rebedebe. Aja na ya, yomo. <laughs> Tepenemu rebedebe Lalu kayak kenapa wae balmong? Ih, mo mau Ay, masa nolong ivarie ci tepenemu rebedebe. Deke. <laughs> Ndax ñom mënu ñu ko won. Ah. Entah da tepen nama, ma leen rebedebe. ñu ne ah. ay waay bëgg bëgg bëgg bëgg daal. dégg nga nii. ay waay waay mais kontaan naa nag ci trop trop trop. kontaan naa loo man nee naa waxtu ma ci. dara dara xol sedd na xol sedd na xol sedd wax lalu lan la. Sada. waaw bin-bin. bin-bin eh ab tas ah man fer yi ma fi tak fi borom keur gi toog moko mom muy alaaji da ngeen bëgg ay fer ab leen ko. fer fer loolu ah sa fer ya. mu ne. sa fer yi ci tata wax ne yaa ko moom. pour 2 minutes la rek. Eh, na ngeen def ko sama fer jabar. non ma sa bëgg ko dama ko dégg rek kii ma ko gis. gis te ni ko transparence ni ni sax. ni mu yoroon dem marché dañu romb. kon yéen seen bët yaa ngi sama feri jabar ji léegi booy xoolal je vous en prie expliquez moi rek nan ngeen def ba gis feri rek nan ngeen def rek ba gis feri wax leen ma ko. ko xam nga ko def yow gisee man dama ko dégg rek. zoom zoom zoom ko def. Père bul jooy. Père ay Père jarul jooy. feri kese ngeen gis feri kese. ah yow mi. dëkk bi jaxasoo baax raay internet bi dëkk gi yàq daru ni ndax quelque fii na internet bi dëkk gi jaayante bon moo xew ci sama temps wàllu maama jógul yow yeah yeah yeah no di yor sa pan di lijjanti si wa jàmm la nyuwun. lu xew. ok. fer yi ma tegoon fii. fer ya. yi Wah tegoon wah way udah mulai yow itam looy jël ay fer dëgg teg ci buntu cuisine moom ma ne kuy togg ay Iya yu sew yee dem yu dijji. yëpp a dem. lan. yu sewee yu dijji yëpp. kii samay fer la jël. fu xale gën a yaa ngi yor sa pan di lijjanti si ma jàmbu teg dil nekk fo jouer chaque jour xale bi nga tur la ndaw yaa xale yi ku ma ci gis xam naa ne ku ma ci njëkk a jàkkaar lool doxo doxo dox dox boy bëgg dee xale yi ndaw sàcc sa feri jabar di la wayaduloo ñàkk loola fayda amuñu lenn lu ñu sàcc yow sàccoo ginaar mbaa dugub sàcc samay feeru jabar yóbbu ko wër naa wër wër eh eh kaay lii nga def ni ci lu mbokk banaana bii ngay dagg di ko lekk bàyyi poubelle ba nee taw war a jël xottee daf ko ci poubelle ba yéen lu tax mal civilisé yéen mal civilisation bi pour lan la xanaa romboo poubelle ba fee nooy lekkee banaana jël xolit yi ko ci mbedd mi le Sénégal ne marche pas à cause de sourdir ponkal mo tolni nii yéen gina ngeen di set. yo papa yang ngi exagéré de. set laa la wax bo lekkatee sa banaan daf ko ci poubelle bi sa baye romb fi tarxis kat api CNG ciow wala ma jaar fi damm papa nga bal ma mais yaa ngi exagéré. Eh, xam nga luma lay xamal man dama lay noq lekol rul ñaar banaana ñaar fukk yi weñi top la banaana buru bara pesa wo woo fere bi nga jël ci yi pour lan xamante ngeen trop tempat civilisé. papa nga paham ada demee yaa ngi exagéré de. exagéré xam nga du ma sa moromu baay boo waxee ma jàll léegi nag du la laay def. sama moromu papa nga dama la respecté. nga ne la. te mag bu ame cër moo ko jox boppam. waa kii nan laa ko war a def xale bi réew léew ah dama lay duma fi nga taxaw duma man. karateka ceinture noire sama kata gini. nii dama lay dóor ba dama la ci koñ bi coow du jib gis nga koñ bi kenn nekk dama lay ngalaju yaa ngi dégg. waaw. boo bañee ma fësata la nag réglé sa baay. ah fësata sa baay nag loolu moom du du du victoire. ça dépend yow yaay si. Ah. nag buñ ko joxee cër moom moo ko may bopp. mais heureusement sa baay daa asma ma ne ko sa baay daa asma. Eh, waay boo lekk de dégg sànni nii ci suuf nii rek dégg nga amul solo sant waa. sekk la sekk sekk sekk yow sama doom bàyyi nga de sekk waaye yaa baaxu sant waay hmm. sekk waay.

loo waddal ma far yéex sugir rigi jaa eh waay sekk waay maay lii de mooy mën a am jàmm. laay la la la karate ka. munoo nga xool leneen loo dal. gujubu jaa sakki saa. gujubu jaa sakki saa ko tam. gujubu jaa sakki saa. eh waay sax sakki saa. gijigi jaka sakki saa. gijigi jaka sakki eh,